dina am ñu ma tontu mais su ma waxee fii ni bandiraaɓe sehlaaɓe mbede salmi noon am na ñu ma war a tontu waaye su ma nee asalaamaaleykum ma mbokki lébu yi am na ñu ma war a tontu donc yaakaar naa ni euh, fa dëgg yàlla war nga mën a digal kilifa réew mi mu def mooy loi bi na ma la ko waxee woon bu ñu jàllee fii ci Mali lu mu tuuti tuuti danañu xam lan mooy terrorisme bu ñu demee fële ca France dana ñu xam lan mooy terroriste donc man li ma waxoon keroog loolu laay wax tey l'appellation terrorisme monsieur le ministre est-ce que duñ ko seetaan parce que li waral sama collègue député yenn yi di wax di tiit naan sama doom daf ma woo fajar ne ma bul dem loolu rek moo ko indi te loolu nag sosuñu ko fenuñu ko abbuñu ko ci këyit gi la nekk ñu wax ko monsieur le ministre kenn sosolu la ken fenalu la luñ la waxal yaa ko terroriste rek lañ wax Té ñun duñu ay terroriste ndax monsieur le ministre euh, réew mi su fi terroriste duggoon lu mu tuuti vous nga sentir ko mais appellation yi dafa commencer changer de votre magistère force occulte la yenn say. yenn c'est des lutteurs qui n'ont pas de combat Ñom ñoy manifester wu le langage d'al est tellement a tellement changé ba dafa xaw a tiitalaate moo taxoon ma ne nañu waxtaane réew mi proposer beneen loi proposer beneen waxtaan entre l'opposition parlementaire mais ubbi ko aussi ci opposition bi nekk ci dëkk bi ndax côté euh, yu bari la pour mën a trouver yeneen appellation monsieur le ministre c'est vrai terroriste kenn bugg ko ci benn dëkk man de bugguma ko te su ma wóoroon ne day gete le Sénégal lu mu tuuti tuuti man fii laay toog am honnêteté bu toll ni yëkkati sama loxo ni la jàppale naa la ci loi mais monsieur le ministre terroriste bi fi ñu ko accentuer moo bon ca clavier ba la monsieur ministre ca clavier ba la te fii ci réew mii ay king clavier ñoo fi nekk parce que kenn mënuñoo teree bind ci suñu clavier yi parce que monsieur le président de la république dafa génn daan ne buñu waxé waxee ngeen nekk ci ginnaw seen clavier di kàcci kàcci ñu tek ci 10 jours mu woté procédure d'urgence mettre ces menaces en exécution pour ñun buñu ñu bindatee ci ci internet bi suñu soxla nga sét ñu nga ñu nga wooñu monsieur le ministre seetaatal lolu parce que bu fekkente ne on doit rappeler tout simplement tay le 23 juin monsieur le ministre buñ ko rappeler waté xana xaalis bi financé won le 23 juin lolu du xaalis terroriste parce que Ablaye wad mo fi nékkone financer len yeen ba ngeen jall ñew magistrature suprême ngeen ne ken du financer kenen par force lañ fi financer waté ay waxtaan ben benen bi monsieur le ministre dafa am sama collègue député bu ñew indi wa e xana yeen règle e ma e tay ngeen ko bëgg a adapté bay indi ay wa. wa légui le CEDEAO wax sur les droits de Karim wad yow monsieur le ministre nak maa ngi la koy ñaan comme respecté nga bii ca CEDEAO te wa la jóge na nga respecté bu Karim wad bi parce que la la résolution de la CDAO. la Karim gagne tous les procès internationaux nga avons ni les textes de la parce que si appliqué ce qui se trame à l'horizon une probable troisième candidature du président Bourfouta du fi parce que Karim va battre à place couture monsieur le président monsieur le ministre